المجد أخرى الحضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنجي تاو يب غور أك جيجن مك أك ناو غن أك دك نيجي نيو كيبو كان كوفي تيو دي سنتي الله ميغا خمنا مو مي ني توغات في تي جتاي بي غا خمنا حلقة لا بأن حلقة لا تي حلقات مجالس مولد النبي صلى الله عليه وسلم تيو عندك مبكي نيغي سني سوني نجاي يي تيو ييب داندك نيون سوني تشاموي شيخ محمود الشيخ شيخ محمد الخليفه مقام شيخ محمد البشير دي مقام سيدي شيخ العربي اك سرين باي ياس بن شيخ محمد العربي اك سيدي الحاج محمد زينب ibn Cheikh Serigne Mbaye Cheikh Ibrahim ibn alxaaji Ousmane di nuyu seen doom yi ak seen rakk yi nga xam ne ni ñu ngi teew ci barab bi suñ mag Cheikh Oustaz Babacar Niang di nuyu tim shabaab bi nga xam ne ñoo baaxoo aada bi nga xam ne ñi ngi ko nampee ci maam yi ak baay yi comme ni ko Oustaz Cheikh waxe léegi jële ko ci ndigalal xalifa Cheikh Ahmed Tidiane tey jiitim ñu jëlaat ndigal ak loolu ci beesal loolu ci ndigalal xalifa Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass taala allahu baqaahu ajaada bi sixati wafaqna jamian li muraadi cheikh yi ngi nuyu di ndokkel ñëpp gan ñi ak dëkk yi góor ak jigéen mag ak ndaw xam naa ne jotaay bi daan na gën a gudd ni mu war a gën a guddee tey comme sëriñ bi dafa bëgg gàmm gi teel a commencé te bëggoon nañ jotaay bi ñu def ko depuis euh, salaatul asr waaye eh, yàlla euh, dogalu ko woon heure bi lañu ko tànnal ñi jaaraat ci yenn ci bind bàyyi yi nga xam ne lenn lu ci nekk rek euh, dafa doy pour jëmmal yonentu bi sallallahu alayhi wa pour feeñal tim moom mbëggeelam ci yonent bi salallahu alayhi wa ak feeñal màggaayi yonent bi salallahu alayhi wa sallama ak ñaan yi nga xam ne mu ngi koy ñaan ci biir e, ñaan yooyu ci biir tagg yooyu nga xam ne mu ngi koy taggee yonent bi salallahu alayhi wa sallama buñ koy baamuwaat dañ koy baamu ñun tim ngir di tàllal loxo di dunguru ci pay boobu nga xam ne moom dafa waxoon moom Cheikh Ibrahim ne moom du dunguru lu ma yonent bi salallahu alayhi wa sallam ila xayri xayril xalqi lan atamallaqaa gàmmu dara lu may jokkoolaat suñ beesal suñ jokkoo ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam te loolu mooy beesal suñ jokkoo ak alquran te mooy beesal suñ jokkoo ak sunnati muhammadin salallahu alayhi wa sallam suñ jokkoo ak li risaala bi làmboo yépp ci makaarimil axlaaq mooy beesal li yonent bi salallahu alayhi wa làmboo ci ay jikko yi nga xam ne nii moo mën a sobe àddina ci jamono juñ mën a nekk ci jamono ba ci jamono bi nga xam ne moom ca la nekkoon sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moo mënoon a xettali àddina rawatina bu ñëwee tey jii ba tey jamono xat jamono lëndëm ba ñooñ jamono di wax ne lislaam moom moo nekk ci crise fekk xam nañ ne lislaam nekkul ci crise ñoom gis biñ gis islam di ko màggee màgg bu gaaw boo xam ne nii buñ ko doon seet ci ay pexey doomi aadama ñu gis ne warta màggee nii ndax ñoom li ñuy ootee ñu ngi koy propagande propagande bu nekk ñu ngi génnee seen xaalis di ci def lu nekk waaye ñu gis ne loolu mu ngi dool mu ngi wàññeeku ñu gis ne lislaam mu ngi yokk ñu gis ne ummatul islaamiya dafay yokk jullit ñaa ngi yokk di yokk ci Europe di yokk ci Amérique di yokk ci Asie di yokk ci fépp foo xam ne nii ña ngi ko fay gën a xeex ñu ko gën a xeexee rek muy gën a yokku léegi nag ñu ne xanaa nañ seet tayalloo nit ñi ci lislaam boobu tayalloo leen ci yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam wan leen ne yonentu bi sax moom eh, ci boppam terroriste la indi ay caricature yoo xam ne ni manta lottu na pour mën a caricature yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li amoon démb rek ba nga xam ne waa Màkka jaar nañ ci laa tasma'u li hada alquran walgaw fihi laallakum taglibuun bu leen déglu alquran yi bu yonent bi di wax na ngeen coow bu boobaa ngeen not ko jaar nañ ci wax ne moom dafa dof jaar nañ ci wax ne moom buxaaba la jaar nañ ci wax ne moom woykat la jaar nañ ci jéem koo nger ñëwal ñi def la buur pour nga bàyyi li ngay oote nii mu bañ zuhd boobu nga xam ne moom la am ci nguur mooy ne yàllaa ko tax a jóg ñëwal ñi dajale suñ alal yi jox la ko pour nga bàyyi li ngay oote noonu zuhd boobu mu am ci alal yooyu ñu buggoon koo def mooy ne yàlla rek moo ko tax a jóg bu fekkee ne jigéen nga bëgg ñëwal ñi seet ku gën a rafet ci suñ jigéen ñi jox la ko zuhd boobu mu am ci loolu mooy tegtale ne yàlla rek ko tax a jóg ñu xeex ko fukki at ak ñett ci makka xeexut digalewut ku xeex digalewut sax ku fayu digalewut koo xam ne da ngay eh, delloo sax saaga muñ muñ boobu mu ko muñ ànd ak ne xeex bu nekk jaar nañ ceeg moom loolu muy tegtale beneen tegtal ne yàlla rek ko tax a jug ootewu dara ne ci loolu la jëm lu may ne man yonent bi yàlla la yàlla moo ma yónni ci yéen waaye nit la kom yéen moo tax ku bugg a wàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàññeexoo ko lu may moom daf doon rawanteeg jabaram kon ba léegi yow déggagoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo ko tax a jug dafa ñëw pour delloo si nit ñi ak nite xam ne dafay ànd ak mën a jokkoog xabaari asamaan nit ngay nekk comme nit ñi di dund ci sa biir waa kër di dagg daggal say jigéen say waa kër yàpp di leen dimbale di gaar ay mbubu yu xotteeku loolu yëpp mu koy def xeex biñ ko ci xeex yëpp dem nañ ba dagg nañ ko ci lu nekk waaye ba ko baayam ooyee di ko wax ne ndax doo bàyyi li ngay oote lu mu wax buñ tegoon jant bi ci sama ndeyjoor bi mu may lakk ñi teg weer bi ci sama càmmooy bi mu may lakk ngir ma bàyyi lii yónni ma lii ma ñëwee kon du tax ma bàyyi ko kon muñ googu nga xam ne moom la muñ ak mbooleem xeeti xeex yi nga xam ne moom lañ ko xeex loolu tim dafay génn tegtalaat ne yàlla moo ko yónni lim wax nga xam ne ay xaybiyaat mu ngi ci ajowoon nga xam ne saxaaba yi seen bopp ñoom ñoo nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci xutbata xajjatul wadaa xutba googu nga xam ne moom la fa def lépp lu war a am ci àddina rek daanaka wax na ko ku takk yaa takk ku fàtte fàtte waaye saxaaba yi nee nañ gannaaw loolu xibaar lu mas a xew rek ñu fàttaliku ne lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci waxam te indi ay xaybiyaat taxu koo jóg waaye li ko tax a jug rek mooy jokkale nit ñi ak yàlla tabaraka wa taala ba waa màkka yi di ko xas di wax ne muzammaman abayna wa diinahu xaley na mu ne xool na yàlla nim ma wëttoo ci ñoom wëttu na ma ba bañ ma bëggee xas mënuñ maa xas ndax muzammam la ñuy xas muzammam mooy kuñ ŋàññi te man Muhammad laa tudd ñoom ñëpp Muhammad lañ koy tuddee te ñoom ñëpp ñoo ci yokku al amin nekku yàlla óolu la moo tax Abu Sufyaan ba ko Heraql laajee ne ko ndax dana fen mu ne masta fen masta fen ndax dana uruj mu ne du uruj xanaa ñu ngi ci ñu ngi ci jubóo bu bees xamul xamul lan la ciy def mu ne foofu rek laa amee prof lond boo xam ne nii danaa danaa ko dugal kon kooku nu jamono gën a soree jamono dafay gën a wane ak matam waxtu wu nekk baax na pour ñuy gàmmu waaye gën naa baax nag ci waxtu wi nga xamee ne jamono ñu ngi bugg a portrait joxe ay suwar joxe ay portrait ci yonent bi boo xam ne dafa uuteeg lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa jokkale haat ñun suñ jàng sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jokkaleexaat suñ jokkoo ak moom suñuy ndaw gën a xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku ko xam da ko bëgg ku xam baax ku bëgg baax danga ko bëgg ku bëgg lu mat danga ko bëgg ku bëgg nit da ko bëgg ku bëgg ko bëgg ku bëgg koo xam ne sauvékati àddina yëpp da nga ko bëgg ku bëgg a yow ci sa bopp da ko bëgg te loolu yëpp mu ngi ci jàngati siira muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo tax dañuy dugg ci jàng euh, qasida bi am euh, bi sawmi wa hajji lam athiq بفضل كريم يوم تبلى الحقائق أصلي امتثالا أذكر الله تاليا فما ثم شيء إن تبصر زائق تغمد بفضل عبد سوء مقصرا فتنقذه ضاقت عليه الطرائق فكم ضاق سبل العبد بالكرب والأسى ووافى وإذ وافاك زال المضائق فقد جئت بالدين الحنيف مهددا ودافعت عنه والسيوف بوارق فآل العدا فآل العدا من بأسهم قد تقهقروا وبينت نهجا فاز منه الخلائق وإني محب شاعر خادم لكم وشرح ودادي ضاق منه المهارق بصومي وحجي باير بكما سي قصيدة بي شي جانجلي ن بصومي saw mii ci sama or wa xaj yi dëgërluwuma maanaam sukkandikuwuma man ci samay or ak samay xaj loolu mooy sukkandikuwuma ci samay jëf yu baax nga ne ko ci loo sukkandiku mu fal wathaiqu dëgërwaay yi lu ñuy dëgërloo lu jaam war a dëgërloo bi fadli karimin mu ngi ci ngëneeli aji baax ji ki yàlla tabaraka wa taala yawma tublal xaqaa'iqu bés bi nga xamee ne yàlla dana nattu jaam yi nattu li nga xam ne moo nekk ci seen biiri xol loolu mooy sukkandikuwut ci jëfam ju baax waaye ànd ak loolu dana jëf bépp jëf boo xam ne nii bu baax la usallim tisaalan damay julli imtisaalan ngir topp ndigal yàlla li yàlla santaane julli danaa julli adkurullaha dana ma tudd yàlla taaliyan may aji jàng alquran ba ma thammata déet di nekk foofule shay'un dara in tabassara ndam gis na ci bëti xol zaiqun koo xam ne mos na mos xam-xami góor yàlla yi boobu jàngale la boo xam ne mooy man duma sukkandiku ci samay jëf waaye ci mbaax ak yàlla lay sukkandiku nga ne ko comme yow da sukkandiku ci mbaax ak yàlla ndax lu tax ngay def mu ne damay def ngir topp ndigalal yàlla damay def ngir top ndigal yàlla tabaraka wa taala waye ci mbax ak yàlla rek la sukkandiku bu fekke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rod ci sahih muslim mune kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zaat yawmin jalisan wa fi yadihi uudun yankutu bih فرفع رأسه فقال ما من نفس إلا وعلم منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلم نعمل أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يونت صلى الله عليه وسلم دفا توك بس imaam muslim moo solo xadis ji toog fekk mu ne mu ngi amee benn bant ci loxoom mu jël bant bi di ko samp ci suuf daana def loolu ba pare xool ca kaw ne amul benn bakkan lu may xam nañ fan la jëm xam nañ palaasam ci àjjana amut benn bakkan bu nar a dem safara lu may xam nañ place am ci safara maanaam ñii dem safara dem nañ safara ba pare ñii dem ajjana dem nañ ajjana ba pare saxaaba yi ne ko yaa rasulullah sallallahu alayhi wa bu fekkee ki noonu la demee kon lu tax ñiy jëf nag comme kuy dem safara dem na safara ba pare kuy dem ajjana dem na ajjana ba pare xanaa kon duñ wàkkeel lu ñun ci loolu ba a jëfati mu ne déedéet jëf leen fa kullun muyassarun li maa xuliqa la jëf leen ku nekk li tax yàlla bind ko yàlla dana ko yombalal loolu yàlla bu naree yóbbu nit jànn daf koy yombalal yooni jànn bu yoree yóbbu nit safara it yombalal ko yooni safara xool ko rek ci sa ci zaahir yi école yi la plupart ñi am xel am niveau classe yi ñu leen yóbbu nangoo jàng toujours ñoom ñooy admis kon maanaam kuy dem safara dana dem safara kuy dem àjjana dana dem àjjana warte tere nit ki liggéey waaye nit ki na xam ne buy liggéey liggéey àjjana na door a yaakaar boppam ne ci ñooñ àjjana la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa dafa toog benn bés saxaabi yi di ñëw mu ne am na kuy ñëw ci bunt bi nit àjjana la muy ñëw muy Abdullahi ibnu salaam ba mu paree xew-xew boobu xew na ay yoon abdullah ibnu omar topp ko pour bugg a xam kii lu tax mu nekk nit àjjana mu ñëw ne ko suma bàyyi daf maa mere dama la doon ñaan ndax man nga maa may ma fanaan sa kër te fekk dafa bëgg a xam kii comme nit àjjana la ana yan jëfi àjjana lay jëf pour mu mën ko cee mu ne ma fanaan këram ñetti fan gisuma ci moom dara lu extraordinaire gis naa daal ñoom bu ñu waxee loolu gannaaw farata yi la ndax ñoom jàppoon nañ ne farata yi moom kenn mënu koo ñàkk a def julli yi kenn mënu koo ñàkk a def julli ci jumaa ja sax kenn mënu koo ñàkk a def ndax Abdullah ibnu Mas'ud dafa wax ne ñaari nit ñoo daan tardé julli mbooloo ci ñun ci saxaaba yi naafeq boo xam ne xam nañ ak naafeqam maanaam ñëpp d'accord nañ ne kii naafeq la wala koo xam ne dafa feebar wa in kaana al marid yatahaada bayna al isnayni xatta yudaa fi saf donte ku feebar sax daan nañ gis ku feebar ñaari nit téye ko mu yukki yukki yukki bañ teg ko ci ci sàppel kon ñoom bu ñu waxee ma bugg a xam maanaam yeneen jëf yu dut farata yu mu def ba war a nekk nit at jànn moom la buggoon a seet mu ne ma fanaan ak moom ñetti fan gisuma dara waaye seetlu naa ne waxtu wu ko ci guddi dana tudd yàlla mu ñetteeli fan yi pare ma tàgg ko ne ko maa ngi dem mu gungee ma ba ci buntu kër gi ma ne ko ah man daal dégg dëgg jotewu moo nag sama bàyyi dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nit àjjana nga ma bëgg nga xam noo def ba nekk nit àjjana kon yu baax yi loo gis nit ci am ko yoon wam jaar ba am ko rek moo moo koy maye ba léegi li ko doon maye dem moo koy maye ba tey mu ne ko ah lii nga ma gis ma ngay def rek lii laa def mu dem ba kanam mu owaat ko ne ko waaye nag yàlla dafa am lu ma may jullit du am dara mu naqadima ci sama xol mu ne ko kon fii nga rawee nga xam ne jëf yi moo war a tax yonent bi sallallahu wa sallam di ko junju ne kii nit ci àjjana la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam dafa wax ne laa yadxulanna ahadun jannata بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي كن نتيين دوغو أجانا تي جفم رك اسكو لول دا فاي نينال جف تا وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله جف لين يالا دانا غيس سين جف تا يالا واخنا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا jëfkat yi fekkoon nañ lañ jëf mu teew te yàlla du tooñ yàlla du tooñ kenn maanaam doo jëf yàlla neenal ko waaye li muy jàngale mooy bañ a sukkandiku ci jëf ndax nit ki mën naa jëf te óorut ko ndax lim jëf yàlla nangu na ko nit ki mën naa jëf te óoru ko ndax lim jëf yàlla nangu na ko tabaraka wa taala kon nit bu fekkee ne dafa bëgg sukkandiku ci loo xam ne xamul ndax nangu nañ ko wala nanguwuñ ko ndax yàlla du nangu ci jëf yi lu may loo xam ne nii dafa sell loolu lay jàngale mu ne kenn ci yéen di dugg àjjana ci jëfam ñu ne ko ba ci yow yonentu mu ne ba ci man lu may yàlla muur ma ak yërmandeem tabaraka wa taala kon yërmandeeg yàlla moo koy dimbale ci jëf yoo xam ne yàlla tabaraka wa daf koy nangu loolu la bàyyi di jàngale ne sukkandikuwuma ci sama or sukkandikuwuma ci sama xaj ndax sukkandikuwaay yi bés bi nga xamne bi yàlla di natu jami yawma tubla al haqa'iq moy yawma tubla al sara'ir be yàlla di xol xol bu nek la ca nek ak jambi lan la indi ci jëf fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man xafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya bés bobu bayne ne wara ñu way du ay jëf waye sukkandikuwaay yi mooy ngëneel ak yàlla tabaraka wa taala moo tax mu teg ci nag ne waaye ànd ak loolu damay julli ngir topp ndigal yàlla yi dama kon mooy dama oortim ngir topp yi dama aj kir ngir topp ndigal yàlla yi damay jàng alquran ngir topp ndigal yàlla yi waaye xam naa ne dara nekku fa ci dëgg-dëgg lu ma yàlla tabaraka wa taala ñi nga xam ne nii dañoo àgg ci taxaquq àgg ci ñàkk a seedu gis nekk ak leneen lu ma yàlla tabaraka wa taala ba pare del sihaat nekk ku mat koo xam ne da ngay xam ne dëgg-dëgg yàlla moo fi nekk ci dëgg-dëgg ndax dëgg du soppeeku te ñun yi ñuy gis yëpp mu ngi soppeeku ndax ku ci nekk ñu ci bëri gis nekkoon nañu ak seen bàyyi ba ci kanam ñi dee nekk ak seen yaay ba ci kanam ñi dee ñoom it dañuy dee jamono di dem jamono di ñëw ba jamono jeex ñi xam ne kon loolu du dëgg dëgg moom mooy yàlla tabaraka wa taala loolu ku xam loolu ba pare dëppaat taxaw jublu ànd ci yoon yonentu bi sallallahu wa sallam not sa bakkan bi nekk ci sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sukkandikoo wootoo ci jëf yi waaye du la teree jëf bàyyi dafa dénkaane ne jaam yi taalibe yi na seen xol yi lap ci teewlu màggaay ak yàlla tabaraka wa taala waaye seen cër yi نعن كو لبال تي توب نديغال يالله تبارك وتعالى نعن توب يالله توب غوغنا تات واي دويلو يالله وليس توب غي نعن توب يالله توب غوغنا تات واي فك يالله دوينا لين وليس توب غي لولا ابن عطاء الله السكندري دون جانغال ن من علامه الاتكال على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل luy tegtale na jaam bi ci ay jëfam la sukkandiku mooy waxtu wu juumee rek dootul am benn yaakaar ci yàlla waaye bu fekkee ne ci mbaaxak yàlla la sukkandiku bu juumee tim du tere mu am yaakaar ci yàlla bu fekkee ci mbaax yàlla la sukkandiku num toppee yàlla lum tat tat du tere mu ragal yàlla bi nga xam ne nii moom dafa sañ def lu ko neex ndax jaam bi mën naa ñëwee amalu taqalay nii yàlla ne ko nanguwuma ci loolu dara moo tax topp gi du ko taxa bew rëkkug rëccug ndëggamtim du ko taxa eh, eh, naagu ci mbaax ak yàlla tabaraka wa taala waaye ñàkk a naagu ci mbaax ak yàlla tekki wut fetteerlu di def lu la neex di wax ne yàlla eh, baax na yàlla baax na te yàlla baax na boobu ki koy wax fekk ci digganteem ak boromam rek la ko nangoo def waaye nangoowu ko def sax ci këram ndax yàlla baax na ba moo tax nga jàpp ne da nga dugg àjjana te doo def dara lu baax te yàlla baax na taxut nga jàpp ne mën ngaa ñàkk joxe dépasse te boo ñëwee sa kër fekk fa añ te danay am mën ngaa ñëw sa kër fekk fa ñu yàkkal la yàkk boo xam ne moo gën sa dépasse bi fuuf waaye terewut boo xëyee da nga dem kërti kërti góor góorlu ba jéem a am dara pour joxe ko dépasse door a xam ne nag yàlla baax na ndax sa kërti kërti boobu mayut la bu fekkoon ne sa kërti kërti bi moo lay may bés boo sonnee danga am te dana am bés yoo xam ne ci ngay gëna sonn doo am dara dana am bés boo xam ne dañ lay fëgg yàqal la nelaw ngay mer ñu jox la loo xam ne mën nga cee nelawee fukki fan yoo xam ne doo dem marché waaye yàlla baax na du tere nga xam ne yàlla mi baax moomu mooy yàlla mi sañ kon yoon wi gannaaw wéetal yàlla wéetal gu mat sëkk saalixiina yi jaam yàlla yu baax yi liñ gën a ragal mooy wàkkeerlu wàkkeerlu lañ gën a ragal xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ci xadis ne ndax xam ngeen lan mooy xaq yàlla ci jaam yi ñi ne ko mooy ñi wéetal ko bañ koo bokkaale dara jaamu ko rafetal ak njaamam mu ne xam ngeen lan mooy xàqi jaam yi ci yàlla gannaaw bu ñu defee loolu ñu ne déeréet mu ne mooy mu may leen ajjaan Muaz ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xadis jooju ma dem wax ko nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko bu leen koo wax ndax boo leen ko waxee dañ ciy wàkkeerlu Muaz mu ne nettaliwut xadiis ji lu may ba mu demee ba nga xam ne ragal naa dee fekk mu ngi nëbbu xam-xam mu nettali xadis ji ngir bañ a am bàkkaat ci nëbbu xam-xam yontu dafa nekk benn bés ci baqiul garqad na abu hurayra te topp ko bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ci saxiix muslim yonent bi sallallahu alayhi wa jox ko ay dàllam ne ko génnal maanaam dàll yi mooy mu tegtale ne li muy wax moom ci yonent bi la jógee risaala bi muy wax yonent bee ko ko wax mu ne ko génnal koo taseeg muy wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rek nga béggal ko ne àjjana la jëm abu hurayra te génn ñëw taseeg seydna omar na omar ne ko foo jógee ci yonent bi foo jëm mu ne yonent bi sallallahu moom ma wax ne naa naa génn ku ma gis daal muy wax ashhadu an laa ilaha illa ma bégal ko ne àjjana la jëm rek Seydina Omar dóor ko kurpañ ba mu daanu ne ko bul dem di ko wax nit ñi sukkandiku ci loolu ah Abu Hurayrata daw ñëw ci yonent bi ak jooyam yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko lan la mu ne ko Omar moo ma dóor fekk Omar a ngi topp ci gannaawam radiyallahu anhu mu ne ko ah lu tax nga dóor ko mu ne ko lii bu ko waxee nit ñi nit ñi dañ ci sukkandiku yonent bi sallallahu ne ko bàyyil kon sukkandiku ci sa jëf laa ilaha illallah man qaala laa ilaha illallah daxalal jannat koo xam ne sa mu ak wax mooy laa ilaha illallah danga dugg dugg àjjana waaye ndax dangay dugg ngay dugg àjjana te fekk yaa ngi amee ay bor yoo xam ne il faut ñu mosal la tuuti borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bari yàlla ak ngëneelam moo ko moom moo moom ngëneelam waaye kenn du sukkandiku ci yooyu ndax bu fekkoon ne ci loolu la ñuy sukkandiku kon xam nga ne gannaaw bu ñuy julli julli juróom rax ci ne yaa def ay eh, awraad tariqa loolu yépp pour gën a jegeñ lu yàlla rax ci def di jës ay guddi di ko dundal ci yontu bi sallallahu alayhi di lela ñam di jéem a baax ci nit ñi di moytu lu bon di bëgg lu baax ba bokk ci sette su baax si loolu mooy yar bi nga xam ne moom mooy yari mag ñi lu baax lu ne def nañ ko waaye nuñ gën a defee lu baax rek gën a ragal ndax dañuy laaj seen bopp mbaa bakkan yi amut ci cër te bakkan lu mu am cër yàlla amatul soxla ci loolu yàlla mooy aghna shurakaay ani ani shariik moo gën a doylu ci bokkaale wëlis bokkaalekat yépp lu ko nit bokkaale rek moom mu gedd wàllam ndax moo la moom moom ki nga koy bokkaale léegi boo ko bokkaale keneen rek daf lay boole kooku yëpp sànni waaye wax ji mooy boo demoon ba xam ne yàlla gërëm na la nangul na la danga war a topp yàlla fi mu ne nii ngir sant yàlla te loolu mooy yoon yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne daf daan naafile guddi ba ay tànkam di niwi ba naa Aïcha radiyallahu anha di ko wax ne ko lu tax ngay def lii te yàlla baal na la ci la jiitu ci say bàkkaat ak ci la mujj mu ne afala akunu abdan shakuran ndax duma nekk jaam buy santaakoo ni borom sa jaam buy sant boromam kon nga xam ne ndeke bëgg a dugg àjjana wala bëgg a mucc ci safara rek duun moo tax nit ku baax war a topp yàlla waaye nit ku baax war naa dem ba àgg ci mën a topp yàlla topp bi yonentu bi sallallahu ngir ne bu woo xamoon ne sax ajjana nga jëm nga xam ne ndeke yàlla moom moo xeeyoo jaamu boo xamoon ne tim bàkkaat bi yàlla dana ko baale nga bokk ci gaaye yi wax ne la bàyyi wax ne shibli yi waxoon na ko ne maasiyatun irtakabaha al abdu sawata wa in gufirat ne ñaawteef boo xam ne jaam bi daf ko toggoo ci kanam boromam mu ne ñaaw na jeg na jéeg donte baale nañ ko bàyyi mu ne lu xew rek jaam bi euh, euh, suturaam na ci kanam bur bu baax boobu yalla mi la defal lepp eh, sa xarit bi nga xamne sax lo bëgg mu fekk ci la ci leg leg mu ñaan la lo xamne do ko bëgg waye dang koy def ngir moom mo la ko ñaan diw de manuma ko bañal mukk càkkutéef diw momu nak lim lay may àbb la li la yalla may moy may ak deug deug kon jam bu warna warna rus fu ko yàlla di fekke ci foo xam ne nii mu ngi toggoog li uuteeg li yàlla tabaraka wa taala bëgg rawatina nag bu boolee boppam ci sett si nga xam ne nii dañoo lim ci seen bopp ne ñoom ci maqaamal ihsaan la ñuy dund àgg nañ ci lislaam àgg nañ ci iman àgg nañ ci maqaamu ihsaan dox nañ ba wax ne àgg nañ ci yàlla tabaraka wa taala bàyyi ñooñu daf leen a wax ne wa man matluba falyasa shakiran wa illa fa jazmu ruuxi nahjiu lirrada képp koo xam ne dem nga ba jàpp ne yow àgg nga fa nga bëggoon jot nga sa càkkutéef danga doon ut yàlla nga ne am nga yàlla te bu fekkee ne da ngaa jàpp ne am nga yàlla mooy jeexal nga yàlla kon xamagoo yoon wi lan la ndax bàyyi nee na ba léegi yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi mu ngi mu ngi dox ci butuunul butuuni kon fan nga war a àgg ba jàpp ne man tey damaa am yàlla moo tax ma war a toog yàlla li ko maye woon li ko maye moo koy garde li ko maye moo koy yokku amut benn maqaama nag boo xam ne nii jaam daf cee war a àgg ñi ne tey jii jaam bi àgg na ci maqaama bii nga xam ne tey ku ci àgg moom yow tey waratoo war waratoo jaamu yàlla jaam mën naa àgg ci maqaama ñu goreel ko ci safara waaye ñu goreel la ci safara mooy mooy mooy yow loolu moom mooy dagg yow sa relation sa jokkoo ak sa borom tabaraka wa taala bi nga xam ne jaamu yi moom la la def mu nekk escalier yi nga xam ne moom moo lay jokkaleeg loolu kon nit ku am xel bu dem bañ ba mu àgg ci maanaam goreel nañ ko ci safara sax moom du goreel boppam ci jaamu yàlla tabaraka wa taala ndax dafay bëgg yàlla tabaraka wa taala te ku bëgg yàlla danga bëgg a jegeñul yàlla tabaraka wa taala te amul benn buum boo xam ne moom la ñuy tegal ne moom lañ koy jegeñloo lu may yii nga xam ne moom la moy jaamu yi nga xamne mom la Cheikh Ibrahim di wax ni damay hor damay aj damay julli damay zikar damay jàng alquran ànd ak ne xamna ne dara nekku fa ci deug deug luma yàlla tabaraka wa taala mu doora ñaan taghammad bi fadlin abd suin muqassiran wa tunqidhuhu daqat alayhi طرائق فكم ضاق سبل العبد بالكرب والأسى ووافى وإذ وافى كذال المضائق nu gaaw ci ñaan ndax taggi yonentam bi sallallahu alayhi wa fi muy tagge yonent foofa wax ne mooy xaal bi gën wér ci xaalam wali kulla waqtin xaalatun baada xaalatin wa xaalatu madxil Mustafa xayru xaalaati bàyyi na ne waxtu wu nekk maa ngi jugee ci xaal jëm ci xaal waaye xaal yi ki ko xam xam na ne du du xaali lu may lu may jëf yu baax yam nekkoon ba waykat bi ne woon unwaanu irsi cheikhi nuurun zahirun fi wajihi fanzur ila unwaanihi mooy jëf yu baax yi nga xam ne mu ngi ci nekk suba ngoon mu ngi ci julli yi mu ngi ca jàng bi mu ci jàngale bi mu ngi ci yar bi mu ci dundale yi mu ngi ci wax lu baax mu ngi ci defar diggante yu yàqu mu ngi ci tagg yonent bi salallahu alayhi wa sallama mu ne sama xaal yëpp nag bi ci gën mooy xaal bi may taggee yonent bi salallahu alayhi wa sallama te xam nañ ne jaam xaal yi gën ci xaalam mooy xaal yi nga xam ne xaali nangu ñaan la bàyyi jàngal ne ñu ne am na ay barabu nangu ñaan am na ay waxtu nangu ñaan waaye jaam bi ci boppam am na ay xaali nangu ñaan mooy xaalu infiraajihi ma allahi tabaraka wa taala xaalu safaihi xaal bi nga xam ne mu ngi wéet ak boromam tabaraka wa taala xaal bu jaam bi jaam bi fu mu mën a nekk ci waxtu woowu rek woowu waxtu nangu ñaan la ndax teew gi nga xam ne moom la teew ak boromam comme xaala bi yonentu bi salallahu alayhi wa sallam bi mu koy taggee moo gën ci xaalam moo tax waxtu wu nekk ay ñaanam mu ngi ci biir tagg yooyu moo tax muy ne muy ne yonentu bi salallahu alayhi wa sallam na nga muur ci sa ngëneel jaam boo xam ne jaamab ñaaw téef la maanaam jaam buy def lu ñaaw loolu la tuddee boppam jaam boo xam ne bu gàttañ lu la loolu la tuddee boppam ci loolu ci maqaamu tawaadu ci la koy waxee ci lisaanu lu ubudiya ci lay waxe ci làmmiñab jaam bi nga xam ne jàpp na ne moom la yàlla uutal ci jaam yi lu manque ci jëfi jaam yi rek moom moo ko war a mottali ci làmmiñ boobu lay waxee ne ay ne yonentu sallallahu alayhi na nga muur jaam boobu mbalaa ni ngëneel jaam boobu nga xam ne ku gàttañlu la ndax ku xam dayob yàlla tabaraka wa taala da ngay gis sa gàttañlu ci kanamam ku xam dayob yonentu bi sallallahu alayhi wasallam da nga gis sa gàttañlu ci topp ci gannaawam sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax bàyyi ne yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee ne moom ci boppam yàlla wax ne ko ne ko inna fataxnaa laka fatxan mubinan li yaxbira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxara yàlla ubbeel na la ubbee gu mat pour jéggal la sa mbooleemi bàkkaat yu jiitu ak yu mujj ànd ak loolu muy baalu yàlla bàyyi ne kon lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon baalu yàlla baaluwut yàlla baalu ay bàkkaat waaye lam wax moom ci xadis inni la yugaanu alayya astaghfirullaha fi l yawmi sabina marra wa fi l xadis miata marra danañ ma muur sama xol bi may baalu yàlla ci bés juróom-ñaar fukki yoon beneen xadis mu ne téeméeri yoon bàyyi ne xaynu boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax nag du xaynu ak yaarin laakin xaynu anwaarin maanaam xaynu ak yaar mooy loo xam ne ay jëf yu dëppoowut ak li yàlla bëgg nga koy def ba muur sa xol bi ba mën a tutoo gis dëgg këllaa barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun waaye nag jalaalul xadrati feeñ ci yow ba gisatoo lu may moom jamaalul xadrati feeñ ci yow ba gisatoo dara lu may moom kamaalul xadrati feeñ ci yow ba gisatoo dara lu may moom loolu xaynu anwaar la bokkut ak xaynu axyaar xam nga am na ñaari nit koo xam ne soppeb kii dafa génn te di nooni kële mu génn kële gëmm ba bugg koo xool kii xëm ba mënu koo xool ki gëmm ba bugg koo xool loolu mooy misaale xaynu axyaar ki xam ba bugg ba mënu koo xool loolu mooy misaale raynu anwaar kon yonent bi sallallahu alayhi bàyyi ne lu mu doon jéggalu te moom amul bàkkaat bàyyi ne waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam gim xam yàlla tabaraka wa taala ak màggal gi muy màggal yàlla amul benn genneeku buy waa buy buy romb ci yonent bi sallallahu alayhi lu may mu gis màggaay yàlla gën a màgg mu jàpp ne daf ko war a màggal màggal bu gën a màgg muy jéggalu te fekk amul bàkkaar te lil waarisi maa mawruusi ndax cheikh ibrahima mii wax ne wa saana ilahi nafsiya dahra laa ora amilu ila ma fi sharci jaaiza yàlla moo sange suma bakkan bi ba duñ ma gis ma jëng jëm ci lu sharia buggut te ku ko def dañ la gis duñ ma gis mooy defuma ko waaye kuy def dara yaakaaroo ci lu may làqatu eboo nga bakk dañ la gis yàlla sànge sama bakkan bi ba kenn du gis ma def loo xam ne sharia nangu ba pare tey muy wax ne jaam bu bu bu jaam boo xam ne def defkati ci téeb la jaam bu bu gàttañ la moo tax muy toroxlu di wax ci làmmiñal toroxlu loolu di wax ci làmmiñal màggaayal màggal péeb yàlla boobu nga xam ne ku gis màggaayam doo gis am leneen sax bay gis màggaay ak leneen kooku mën naa wax ne taxamet bi fadlin abdi suin muqassira door a ñaan nag fa tunqiduhu daaqat alayhi taraiqu nga nga nga ndax yoon ni yépp xat na ak moom ba amatul benn yoon bu mën a jaar lu may yoon bi nga xam ne rek moom mooy sa yoon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bëri na bu jaam yoonam xatee mbiram xat ci ay njàqare ak tiitaange wa waafaa mooy wa waafaaka mu dikkal la wa id waafaaka te ba la dikkalee zaala dañ ne madaiqu xat-xat yépp bëri na jaam bu am ay xat-xat dikkal la te ba mu la dikkalee rek la ko yàlla génnee ci xat-xat yooyu yépp bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jaama nga koy dikkal ànd ak gëm jaama nga koy dikkal ànd ak topp ndigal yàlla yeeg bàyyi tere yi jaam boobu dëgg-dëgg war naa am yaakaar ndax bu gisee jaam bu doon dikkal yonent bi dem ba ca yoon feebar dab ko mënta muñ mu xaru rey boppam te yàlla baal ko ngir loolu kon kii ñëwal yonent bi sallallahu ànd ak topp ndigal yi war naa am yaakaar bu dëgër saxiix muslim da ci fekk baabu qaatilu nafsihi laa yukaffaru ku rey boppam ku xaru du tax ñi wax ne héebéer la maanaam def na bàkkaat bu mag waaye du tax ñi wax ne héebéer la lim tegtaloo loolu dafa am saxaabi yi boo xam ne ci dews la bokk nga xam ne doon na wax ñaan yonent bi salallahu alayhi wa sallam fi abu hurayrata bokk pour mu ñëw gàddaay ñëw ci ñoom waaye boobu fekk na yàlla ngëneel googu madina la ko dencal mu am kum ànd ak ne dañuy gàddaay dem ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam gannaaw bu yonent bi gàddaay dem madina ñu dem ba ci yoon kii siburu feebar jàpp ko tàngat bi metti ci yaramam mënu koo muñ mu dagg mu dagg sidditi loxoom yi maanaam mu xaru bi mu daggee sidditi loxoom yi mu dee léegi saxaabi bi nga xam ne moo àndoon ak moom gis ko ne dafa xaru ci seen yoon moom mu àgg Medina waaye bi mu àggee moom gént na gis ànd ndooram bi mu ne ko nu yàlla def yow mu ne ko yàlla daf ma dugal at àjjana li hijrati bi nabiyihi yàlla daf maa dugal àjjana ngir li ma doon gàddaay di jëm ci yonent bi daf doon gàddaay waaye àggut ba pare mu rey boppam ci yoon wi waaye yàlla may na ma jànn na ngir li ma doon gàddaay pour dem ci yonentam bi mu ne maa ngi gis mu ngi muur ñaari loxo yi mu ne ko waaw waaye sa loxo yi nga muur nii lan la mu ne daal dañ ma ne sa loxo yi yaa koo daggaloon sa bopp daal defaral ko sa bopp saxaabi bi nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gént gi yonent bi ne allahumma waliyadayhi faxfir allahumma waliyadayhi faxfir yàlla na yàlla nga jéggal ñaari loxoom yi tim parce que waxut ne allahumma xfir lahu kon mooy lam njëkk a wax ne yàlla baxal na ko ngir maa ngi doon dem ci yonent bi waaye dagg gi mu dagg loxoom yi yàlla bàyyee na ko ko ndax moo ko daggal boppam yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne waaye yàlla jéggalal ay ñaari loxoom ku fekkee koo xam ne daf doon dem ci yonent bi àggut mu rey boppam nga xam ne rey sa bopp bàkkaat bu mag la ci mubiqaat la bokk ànd ak loolu yàlla jéggal ko loo xam ci koo xam ne dafay dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te boole koo toggoo jëf yu baax yi nga xam ne moo ànd ak dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa لوي كات بي واخني گنت گ عباس گنتون جس گنت گيس ابو طالب ابو طالب نكو ابو لهب لا بغا واخ ابو لهب خمغا نيم باي تخ يونتلا صلى الله عليه وسلم waye xex bu nek xex na ko daf daan wër dajé yi bu mu yaakaar ni yoon bi dana fa ñëw sallallahu alayhi wa sallam mu ne sama doom la waaye dafa dof sama doom la waaye li muy wax du dëgg ànd ak yooyu mu doon def yépp ba mu deexee dem na safara de waaye Abbas moo ko gis ci gént mu ne bés ci altine bu nekk yàlla daf koy may oyofal ko mbugalam may ko muy nàmpu meew ci ay baaraamam lu tax ndax bés ba aminatu amee doom mbaa yàllaam sawbaan suwaybatu dafa ñëw ne ko aminatu am na doom maanaam sa doomi mbokk mi abdullahi am na doom mu yón muy muhammad sallallahu alayhi mu kontaan ba goreel jaamam bu jigéen boobu ngir liñ ko bégal ci bëgg juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bëgg googu mu bëggoon ci guddi googu moo tax donte safara la nekk sax altine bu jotati rek ñu oyofalal ko mbugalam ngir bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat bi wax ne ida kaana ida kaana hada kafiran jaa damuhu wa tabbat yadaahu jahim mukhallada ata annahu fi kulli isnayni daiman yukhaffafu anhu للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا وداما موحدا mu ne bu fekkee ne kii nga xam ne dafa dee ci wéddi yàlla yàlla di ko xas ci alquran tabbat yadaa abi lahabin ba léegi ñu koy jàng waaye rod na ci asar ne altine ju jot dañ koy oyofalal mbugalam ngir kontaan gi kontaan lool ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waykat bi mu ne kon loo xam ci jaam boo xam ne jamonoom yépp daf koy kontaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare boole koog di wax di tawxid ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah naka jotaay bu mel ni ki jotaay bi nga xam ne ñuy wéetal yàlla ñoo ci nekk ba pare di kontaane juddug yonent bi sallallahu alayhi di lexale ngir juddug yonent di ganale gan ngir juddug yonent bi sallallahu di jokk mbokk ngir juddug yonent bi sallallahu alayhi di wane seen kontaan ci yàlla di wane seen kontaan ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi radiallahu anhu ci yonent bi نكو فقد جئت بالدين الحنيف مهددا ودافعت عنه والسيوف بوارق نيوي nga دين جي nga xamne دين جي جبلا ولس لو جنگ واي بيغي نيوي دين جي فك نا ياغي نيك كو خامنا دنج لا تكو نون ياغ لا تكو تبوبو نوني ام دوله نيو لا تكو ndax lor yiñ ko lor te xam na ne ñu ko ëpp mbooloo ñoo ñooy ñëw pour xeex ak moom xam nga ne xaswatu badrin ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di song nga xam ne laajte na yónnee nañ laajte jëysh Quraysh yi ñaata gëléem lañuy ñuy lekk ci bés bañ leen waxee ñaata gëléem lañuy rey ci bés ci lañ nattale xam ne kon seen xare bi mat na junney nit loolu muy jàngale beneen jàngale mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa ànd ak ne yonentam yàlla la yàlla digg na ko ne dana ko dimbale mu ngi war a jàkkaarloog ay noonam xeex ak ñoom waaye mu ngi def ay plan yi xareem mu ngi yónnee di rëju di gëstu di seet ñi ma war a xeex ak ñaata lañ toll ma xam suma préparation naka la war a tollu ànd ak loolu mu boole koog di ñaan yàlla di ñaan yàlla di ñaan yàlla di ñaan yàlla ba làmbaayam bi nga xam ne moom la làmbaayo woon daanu ba wax ne yow yàlla tabaraka wa taala kuré bii tey bu ñu leen loree bu ñu leen gañee dootuñ la jàmm ci kaw suuf ba naa Seydina Aboubacrine moo ne ko sa yàlla nangul na la sa ñaan yàlla dégg na li ngay ñaan yàlla nangu na ko yàllaa ko yónni waaye mu ngi jël ay matukaay ànd ak matukaay yooyu mu ngi dimbali ko ñaan bi nga xam ne moom mooy silaaxul muumin yàlla wan ko ndimbalam moo tax mu mu ne ko nga défendre islaam fekk boobu jaase yaa ngi melxati jaase yaa ngi xeex sa sa bakkan xaj na ci ndax yàlla waxoon na ne yonentu bu deexee mbaa ñi rey ko nga xam ne boobu xam na ne mën nañ koo rey ba ba ko yàlla di garantelee wax wan ko ne ko wallaahu yaasimuka min annaasi waaye ànd ak loolu yëpp mu daan dugg ci xare yi nga xam ne ni xam ne ne ñi ñoo ko ëpp ngànnaay ñii ñoo ko ëpp la lay xare junney nit yoo xam ne am nañ seen i waruwaay am nañ seen i fas am nañ seen i gëléem ñetti téeméeri nit ak fukk ñett yoo xam ne jàngaguñ fi xeex yoo xam ne seeni mbokk jàngaguñ ko ñoo bokk benn bi buñ juddoo ñoo bokk façon yi xeex yuñ xam ñoo bokk façon ngànnaay yuñ dara uuteelu leen lu may yii jëy si booy xeexal yàlla la di yaakaar ndimbal yàlla tabaraka wa taala ñii di xeexal seen bànneexi bakkan di xeexal seen bakkan seen doole rek moo leen di gañeloo waaye ñii xeexal yàlla buñ jubee rek tegu ci yoon yàllaa leen di dimbale li naa Omar daan wax jëy si yi nga xam ne daf leen daan yónni bu daan yónni ay lëli xare daf leen di wax ne na ngeen xam ne seen bàkkaat yi laa leen gën a ragaleel ci doole noon yi bu ngeen jubee yàlla dimbale leen ci noon yi bu ngeen dëngee comme ñu comme noon yi nag bu boobaa noon yi ñoo leen ëpp doole boobaa yàlla du faral kenn ñaari kàccoor ñaari saay-saay bu ñuy xeex ku ëpp doole rek yaay gañ waaye bu kii saay-saayee kii dellu ci yàlla tabaraka wa taala saay-saay bi ngànnaay gu mën a am ku sukkandiku ci yàlla tabaraka wa taala yàlla dana ko dimbale ma ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dimbale ko yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla yónneel na ko bàyyi na ko wan ko ne ko yaay xeexal sa bopp yaa ki say saxaaba yéenay jël seen matukaay xeexal seeni bopp ndax bu ko waxoon ne dem leen rek danaa ebal ay malaaka yi ñëw xeexal leen boobaa dafay yomb bu ëpp kun duñ ci xam kuy kuy jàmbaar ak ku nangoo xeex ngir yàlla waaye daf leen a bëgg bàyyi bañ dugg ci xeex bi mu door a ebal eh, jibril mu ñëw ak ki mikaayil di leen dimbale am na ci saxaaba yi am na ci borom xam-xam yi ñooy wax ne ñoom sax jotuñoo xeex waaye dañ doon dëgëral rek saxaaba yi ñii ne jot nañoo xeex waaye saxaaba yi ñoo doon jàkkaarloo di xeex nit dana jàkkaarloo moromam bëgg koo dóor mu gis na nërmal nañ ko mu xam ne am na leneen lu ko nërmal lu tax yàlla waxut jibril xam na benn jibril xajut ci junne yi ci ci millions yi nit benn jibril nag ak mikaayil ànd ak ñetti téeméer nit di leen dimbale ñuy xeex loolu mooy ne boo ootee ne yow danga gëm yàlla maanaam matukaay yépp danga ko war a jël bu àggee ci xeex da ngaa war a xeex bu àggee ci jël war jël sa matukaay da war a jël sa matukaay ba pare nag xam ne nag yàlla du bàyyi jaamam ndax wa kaana xaqan alayna nasrul muminin yàlla moo wax ne dama def lu wareef ci man ne man damay dimbale ñi nga xam ne dañoo gëm bàyyi ne noon yi dellu fa alal ida min ba'sihim ànd ak sen katan ak sen doole yeb qad taqahqaru del nañ gannaaw wa bayyanta nahjan nga leral yoon bo xamne ne faada texe min wu ci khalaiq min def yeb nga indi nak diine ji nga xamne ni min mbindeef yàlla yépp dañ ci taxé mbayne man inni muhibbun man ku bëgg la yonent bi sallallahu alaihi wasallam yooyu ci kebetu yi la bokk kebetu bokkut ak bokkut ak waxtaani waxtaankat yi waaye kebetu waxtaani bëggkat yi la ci kebetu yi la bokk boo xam ne moo boppam rek moo koy wax wa inni muhib man daal ku bëgg la ku mbëgg jéemu a wax fii ki mu bëgg parce que moom kenn rek la bëgg parce que bu doon wax ne man fii bëgg naa yonent bi léeg-léeg mu wax ko waaye fii daf ne man daal ku bëgg laa parce que yow xam nga ne man moom rek laa bëgg moo tax jarul ma lay wax ne moom la parce que am na ñoo xam ne ndaw si lañ bëgg ba foog ne ndaw seen ci xeli ñëpp keroog ba ma fa nga ne demee fan mu ne ci mu ne ci moom te fekk moom ndawam si lay wax dafa foog ne moom moomu ñëpp xam nañ ko fekk moom rek moo xam ne moom moom googu moom rek la ñoree noonu bàyyi nag bëggee la yonent bi salaay moo ko ñoree noonu ba mu jàpp ne mbun boo xëy ne bëgg naa rek yow xam nga ki war a wax ne moom la bëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa laa ku lay way xaadimun laa bu lay liggéeyal lëkkum ñeel leen wa charxu widaadi daaqa minhu lmahaariq waaye firi sama mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi ne kayit yi xat nañ pour wax ko kon nag ñun tim xam nañ ne àgguñ ci waxtu wi mënu ko sharx suma mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne kayit yi xat nañ pour indi ko moo tax léeg-léeg bu noppee moom la bu waxee moom la bu noppee moom la boo waxee moom la te sama rijaalun bil xadimi bàyyi na góor góor ñu bëri tuddoo nañ bëkk néeg yonentu bëri na lool wa inna nii naka man ibrahima man nag man usaajiluhum danaa rawanteeg ñoom rabbanteeg ñoom laa ansani duma dellu gannaaw damay rawanteeg ñoom te duma dellu gannaaw wa usaabiqu te tey tey rawanteeg ñoom te waxoon na ne buliitu bi xubbi almustafa alxatmi ahmada بالكون والأخلاق فرعا ومحتدا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى صليت بنيران اشتياقي أحمدا علقت به والناس في سنة الكراه تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزوحمت في هذا الزمان وانني لفي غيره ممن يروم محمدا خمغا في دابا واخني غور ني بري ليغي كات يونت لاني مان داماي راونتي نيوم باينا فنان مونيم مان بما كوي بوغ بوبو غاناغي نلو بما كوي بوغ بوبو نيت نياغي نلو وزوحمت في هذا الزمان وانني ني دم نك با سي جامونو نيك جيموي ني بوخنتك مان نك سي بوغي يونت بي صلى الله عليه وسلم kon damay war a kon damay rawante bi sax kon damay rawante bi sax du démb de damay rawante bi mu wax ne daf koy rawanteeg ñi bëgg yonent bi di ko liggéeyal waxut démb ndax démb mu ne man rawoon naa fekk ñoom ñu ngi nelaw ba ñëwee ba jëmm yi ñëw nag ñu ne ñu ngi rawanteeg man wa zuximtu fi hada zamani wa innani la fi xiiratin mimman yarumu muhammada walakinani jallaytu qabla sibaaqim waaye man damaa jiitu njëkk rawante bi di xew parce que rawante bi fii la xewee te man jiitu naa woon njëkk loolu mu mel ni ñaar ñoo xam ne dañuy seetaan film boo xam ne ki raw raw na ba pare ñoom ñi teg nag ne ku nekk man kii mooy raw kii mooy raw film bu bees la ci ñoom fekk ki raw moom xam nañ ne rawan na ba pare ca film ba bañ koy joué rawan na ba pare léegi nag ñu ñëw ba ci jamono ak jamono nag ñu ne dañuy rawante. Baay moom nee na balaa rawante bi man àgg naa fañ jëm wa jul وإنني في غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقهم جيتنا نجك ني راونتي وقد نلت تبريز القرون لأحمد ماس جيب لا جيتو nga ne ko waa loolu ku ko moom mu ne man moowuma ko suma sang yonti moo ko moom ndax wa izzul abdi izzu maliki ndax teraangaay jaam teraangaay borom bi la kon man moowuma jiitu googu jiitu boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom waaw yow jiitu woon nga ci ësal ba léegi yaa ngi jiitu ji yaa ngi rawante kon loolu mooy bàyyi wax ne ngeen toog ne da ngeen di sëhra di xoole guddi ngir rawante ci mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàmmu gàmmuwaat loolu yépp lu baax la ndax yéen a ngi koy roy ci ki nga xam ne moom moo waxoon ne usaabiquhum maa ishtu fiika wa in amut feeg maa ngi dund nag damay rawante gaañi ci yow wa in amut bu ma deexee yusaabiquhum far'i wa inni saabiqu bu ma deexee sama bànqaas yi kum neex nga bokk ci loolu bànqaas yi doom yeeg sët yeeg taalibe yi yëpp bànqaas la ndax doom yi banqaas lañ benn doom nanguwut a nekk banqaas yi ndigg rek te doo nekk roxo kon xam nañ ne roxo gi moo gën a foor kon kay xam nañ ne kon roxo gi bànqaas la kum neex nga bokk ci rawante boobu te defe naa neex na ñëpp ndax moo ñu tax a toog fii bàyyi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li xubbika yadcuuni dawaacin cadidatun li xubbika yadcuuni dawaacin cadidatun bàyyi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu bëree bëree bëree bëree bëri ñoo may oo ñooy waral pour ma war laa bëgg yi wa yi waral ma bëgg la lu bëri la jamaalun sa taar bi nga bi la yàlla may bàyyi ne yontu bi moo gën a rafet yuusufa alayhi salaam waaye taaram dafa ànd ak wegeel waaye moo gënoon rafet yusuf laaj nañ saxaabi yu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xarxanama meloon mu ne comme jant bi xasaan ne ko wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa axsanu minka lam tara qattu ayni وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء samay bët mas ta gis ku taaroo ni yow jigéen mas ta jur ku rafetee ni yow yàllaa la bind nga mucc ci mbooleem ayib mu mel ni rek dañ laa bind comme nim la neexee waaye yàllaa ko bind comme nim neexee yàlla tabaraka wa taala noonu la yontu bi sallallahu alayhi wa sallam meloon xar leer na ba jigéenam yi daan nañ gis puso bu réer ci leeraayi xar xanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar leer na ba baayam abu taalib ca jaahiliyatu ga ña ngay baawu naan di ñaan yàlla mu taw ci laamiyaam boobu nga xam ne udabaa yi wax nañ ne eyoon bokk ci muallaqaat yi yañ daan wekk ca kaaba gi wa abyadu yastasqal gamaamu bi wajihi ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم هم عنده في نعمة وفواضل mu ne suma doom ji borom xarxanam bu leer bi nga xam ne leeraayi xarxanamam rek mën nañ cee ñaan asamaan mu taw asamaan tawal ñu moo tax ba ko saxaaba yi waxee ne maral gi métti na àll bi jur yaa ngi dee gàncax gaa ngi yàqu bam ñaanee yàlla maye taw moom yonent bi sallallahu mu ne bu fi abi taal abu taalib bi nekkoon seydna ali radiyallahu anhu ne ko ndax dangaa bëgg ma fàttalee lam waxoon mu fàttali ko moo tax way yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ndëgërluwaay ndax abu taalibin way na ko mu koy fàttali ko abbas way na ko xasaan wéy na ko emut ci mu nangu ne wéy na ko waaye daf ko doon wax ne qul wa ruuxul qudsi maaka kon wéy wi nga xam ne arab liñ xamoon mooy wéy waadi cheytaan fa la nekk kii wéy sax kii wéy sax jinna ji nekk ci waadi abqar moo koy moo koy wax ay wéyam yi lislaam ñëw sellal ba nga xam ne wéykat sax mën na ànd ak ruuxul qudsi mu koy dimbale loolu la waxoon xassaan xansaaw wéy na ko kaab wéy na ko mayena way kat yi nga xamne dañ ko way motax baye bam koy way ne ko walibnu zuhayrin qad ajazta bi burdatin ajizni bi burdin la danahu lahib تقول الا يا نار bardan مسلما لذا العبد abdi ما اقام عسيم ابن ibnu ويون لا ماي كو سمبوم بورد bàyyi ne yonentu ngel la may ma mbuba mburdu boo xam ne mooy garanti nit ci safara bu ñu neexee ñun ñëpp ñu ñaan ko ci jotaay bi sukkandiku ci ñaan ak bàyyi googu wali zuhayrin qad ajasta bi burdatin ajizni bi burdin laa danaahu lahibu taqulu alaa ya naaru bardan musalliman li dal abdi kuuni ma aqaama asib mu ne yonentu bi yi bëri may oo pour mu bëgg la parewuma pour lim yëpp dama ciy lim rek ndax loolu la maanaa bi firi sa taar bi sa rafetal jëm ci nit ñi ndax nit mën naa taaru te bu defee rek nga ne cam nit mën naa maa def lu baax ba pare te boo ko gisee mu ñaaw lool yonent bi nag taaru lool jëfam rafet lool waxam rafet lool wa tabun muwaafiqu ak nag jikko joo xam ne dafa dëppoo maanaam dama dëppoog yow dama dama laa niru xam nga nit ñaare lum niru lay bëgg ñaare lu may bu ñaawee nag mën naa mën na faa bàyyi ñaaw gi bëgg lu rafet ndax loolu mu ngi ci xolam bi rafet xam nga rafet mu ngi ci xol yëpp li benn woykat benn benn benn shaacir almaani waxoon mu ne fii kulli qalbin qasidatun jamila xol bu nekk xasida bu rafet mu ngi ci waaye xam nga duut xol bu nekk moo mën a bind xasida bu rafet looloo tax da nga mën a woy am koo xam ne mënta woy nga woy ba pare mu ne bii rafetul parce que moom am na ci xolam bi xasida bu rafet te xasida bu rafet boobu war na ko ne sa bii rafetul te fekk yow li nga wax moom mënu koo wax mënta wax wës wësn mënta wax bayti mante wax nangam waaye am na xasida bu rafet ci xolam bàyyi ne dëppoo gi ma dëppoog yow dëppoo gi gannaaw taar beeg yi nga xam ne li mu wut ndax bëri waaye dëppoo gi shajaatu nafsin waaye njàmbaar gi yonentu sallallahu alayhi wa sallama mooy jàmbaari jàmbaar yi seydna ali mi gën a jàmbaar yépp nee na kunna ida xamal watiisu ittaqaynaa bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu xare demaan ba tàng ba tàng ñun ñëpp yonent bi la ñuy défensoo maanaam ci gannaawam la ñuy nekk kon moo leen gën a jàmbaar toog a war a guddi koo xam ne dañoo dégg xam-xama dégg ay yëngatu kenn xamul lan moo xew mu génn rek ñol gu fas goo xam ne amul teg amul dara balaa waa Medina eewu fekk na génn na wër na Medina laablu na ñëpp ñëw ne lan turaaw lan turaaw ne bu leen tiit bu leen tiit dara xewut waaye mu ne fas wi fekk na ko mu gën a mu gën a mu gën a mu gën a gaaw mu gën a gaaw euh, géej fekk na ko mu mel ni géej yenentu sallallahu alayhi wa dana wax ci naari góor ay baat yu baax waaye du wax ci naari góor baat bu bon ànd nag ay saxaaba ñiy tukki am koo xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo dégg muy rëbb fas bi mu war yonentu bi ne ko doo ànd ak ñun ndax kii pasbi, sa pas bi mu ne ko doo ànd ak ñun loolu nag nit ku nekk war na cee jàngee kon nag sa oto bi nga xam ne da ngaa dem ba ci yoon yu mu paan sax nga naan su booxum oto bi bu ko waxati ndax su booxum oto bi mën naa dugal oto bi ci booxum li nga xam ne booxum xamul lu firi mooy li nga bañ rek bu ci duggee rek yow ta fekk yaa ngi ci oto bi nga duggaale ci loolu parce que loolu la bi sallallahu alayhi wasallam jàngal waa ji yow ñaanal nga fas bi yàlla rëbb ko ba pare nga bugg a ak ñun ak fas bi ci tukki waaye moo gën a jàmbaar ñépp summa azmun yenentu sallallahu alayhi moo gën a dogu ñépp wa iffatun yenentu bi sallallahu alayhi moo gën a fegu ñépp fegoo fegoo fegoo fegu bés sallallahu alayhi wa sallam dugg na àjjana mu ne ma gis taaxi kaw bu rafet ci àjjana ma gis benn jigéen mu ci buntu taaxi kaw bi di jàpp ma laajte taaxam kaw bi taaxam kaw yi kan la ñu ne ma taaxam kaw Omar la mu ne ma fàttaliku fiiraangeeg Omar jublu na le pour bañ a ndaw si Seydina Omar ne ah ba mu ko nettalee mu ne ko ah yonent bi ba ci yow sax ma fiiree la loolu yëpp dafay wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fegu la feggoom boobu moo tax masta jox jigéen loxo yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam inni laa usaafixu nisaa la wax inni nisaa baatab inni bi moo indi coow li ndax ñi nga xam ne dem nañ di daganal jox jigen jo xamne ne du sa armanté loxo ndax man na nek ak ta nek am ñuy wax ne yonent bi inni la wax man la wax ndax ci jaglem la bokku wala du ci jaglem waye li gëna lemtu dal moy jigen jo xamne ne du sa armanté nga bañ ko jox loxo mo gëna lemtu waye ñu bari xamuñ sax luy armanté da nga and ak nit mu and ak yaayam nga jox yaayam loxo ngir yaayam sa yaay la mu ñew jox la loxo foog ne comme jox nga yaayam man nga ko jox te comme man na nek sa jabar mënoo ko jox wa xilmun ak lewet yonent bi sallallahu moo gënoon na lewet ñépp ndax ku ñëw fekk ko mu taxaw mu poñe ko ne ko jox ma ci li la yàlla jox waaw du sa alal du sa alali bàyyi dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa xasu ko waxu ko ne ko du ma la jox xaar ba ma jox ñi may neexal walla ñi may ngéwélu door laa jox déedéet daf ko jox rek te saxaaba yi nettali xadis ja nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis mbubam mu ngi tarak ndax poñe bi ko waa ji poñ moo tax am na ñoo xam ne lewet googu ñuy wax ci moom moom rek lañ doon seet buñ ci àggee rek dëggal ne kii yonente yàlla la sallallahu alayhi ak tabe goo xam ne xaara fii tawaariqu boo xam ne gëlëm na ci ñu doon bëtt guddi di ñëw ba tukkikat yi daan ñëw di tukki di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabe na gëlëm nañ ci loolu moo tax bàyyi na ko la in saalu qad zurtum alqarma aaqiban wa hal atxafa zuwaara minhu almawaahiba faqad kaana inda annaasi sharqan wa maghriba wa qad taalama أولى الغنى والمكاسب لمن وفدوا من تلك الجزيرة بينما وفدتم من الأقصى لقيتم مطالب أقول ملا سرا وروحا وكلكلا وحتى ملا أكياسنا والحقائب باينة بون لاجتي ندخ يين ني زياره جي وون يونت بي ندخ ماينا لين دارا يونت بوبوغا دان زياره سي جزيره العربيه بي جوبو lu nekk la leen daan may yéen ngeen jugee bu sori dugg ci avion jànkuwanteeg li ngeen jànkuwanteeg yépp ndax may la leen bàyyi ne suñ mbóot yi la njëkk a feesal feesal suñu ruuxu feesal suñ xol yi feesal ba feesal suñu walis yi ñu jóobu woon ba ñuy dem di umra ji ak bi ñuy aji ji màkka bi ñuy ñëw moo gën a diis foofu yéen yóbbaale woon tabeeg yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ci taxawoon mu jël waxtu yépp te xam naa waxtu bi que jeexut sax ibnu abbas dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gënoon a tabe ngelaw lu ànd ak taw ngelaw lu ànd ak taw wa aqlun wa zuhdun yonent bi sallallahu alayhi xel mu rafet rek moo gën a rafet ñépp xel ba waa Makka di werante tabax nañ kaaba gi ba mu pare ñi nar a werante ci xajarul aswad kan moo koy teg bañ gis ne baabu bani shaybata feek fa génnee moom la ñuy yoon yonent bi ñëw jugee génnee foofu ñu ne gërëm nañu amin mu àtteel ñu boobu yàlla yónneegut ko ndax ñaar fanweeri at ak juróom la am xel mu rafet moom la leen attee ne dañuy jël benn mbalaan ñi teg ci xajarul aswad bi jiit yépp ku nekk téye ci mbalaan mi ñu ekkati ko ba mu tolloog fi ñu ko war a jël mu jël loxoom bu tedd boobu teg ko fa ñoom ñëpp ñi gërëm atte boobu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam atte ñi nangu ko loolu xel mu rafet la ku yàlla may xel mu rafet la wa zuhdun ku may ku yàlla may dëddu àddina koo xam ne alali àddina yépp dafay ñëw ci moom te fekk dencu dara musiba fanaan guddi te fekk am na dara loo xam ne des na ci loxoom alal ju bari ñëwal na ko mu jox bilaal ne ko séddaleel alal ji bilaal séddale séddale séddale ba jàpp ne daj na fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci jumaa ja def na ci jumaa ja ñaari fan yoo xam ne bëggut a dellu këram te fekkut alal ji génnut ci loxoom mu ñëw fekk am na lu des mu ne ko tàggale maak lii ma door a dugg waaye zuhdu ko nga xam ne bilaal nettali na ne daanañ togg ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari weer loo xam ne lu lu lu fees lu fees poqataani bilaal ci lekk du nekk ci néegam yonent bi sallallahu alayhi daana toog ñaari weer yoo xam ne tàndarma ak ndox rek moom lay dundee summa xasmun ba tey ku dogu la xasmu ak azmu ñaari baat yépp ci olof dogu la ñuy wax waaye xasima ak azima liñ utee azmu bil ayn mooy koo xam ne lu mu dogg dana ko def donte dafa yàgg xasmu nag bil bil xaa mooy koo xam ne lu mu dogu daf koy def léegi bala koo faat borom xam-xam yi dañ ciy joxe misaal ci Seydina Aboubacar ak Seydina Omar seen naafila Seydina Aboubacar bu julliaan gee rek dafay naafila ngir bañ mu faat ko xaasim la Seydina Omar bu julliaan gee mën naa tëdd ba jugaat ndax lu mënta xew dana ko def loolu moom mooy azima wa xikmatun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku am xikma la nit ñëw na ne ko damay damay damay damay fen damay damay damay njaalo damay naan sàngara waaye benn rek laa ci bëgg bàyyi pour dugg ci lislaam yonent bi ne ko bàyyil fen ba mu bàyyee fen gis ne yeneen yi lu ci bëgg a def xalaat ne bu ma ko defee bu ma demee ci yonent bi mu laaj ma ma ne ko def naa ko bu boobaa dañ ma gëtën bu ma ne defuma ko kon fen naa mu bàyyi ko ci la ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yaay docteur yi docteur yi ndax lenn rek nga ma aaye aaye lépp xikmaam boobu ci la am xale bi nga xam ne dafa ñëw ci moom ci kanam mbooloo yépp comme mbooloo mu mel ni ku fi ñëwoon ne eh, na ko na ko nit ñi may ndigal pour mu njaalo lu la nit war a def ci kanam yonent sallallahu alayhi wasallam xale ñëw yonent bi may ma ndigal ma njaalo nit ne noppi leen noppi leen yonent bi ne sallallahu alayhi wasallam baaleen ku mu ñëw ba mu ñëwee mu ko ndax bëgg ko ak sa ndey mu ne ko déedéet nit ñi it bëgguñ ko def ak seen ndey yi sa bàjjan déedéet sa tante déedéet sa rakk bu jigéen déedéet sa jaba déedéet sa mag déedéet nit ñi tim bëgguñ ko defak seen ñooñu yontu bi raay dënnam bi ñaanal ko yàlla ne allahumma ixfir zembahu wa xassin farjahu wa tahir qalbahu yàlla yàlla nga ko baal bakkaatam bàkkaat yi fekkee njaaloon na wala bëgg a njaalu sax yàlla nga ko baal bàkkaatam yi yàlla nga ko sange pëyam yàlla nga ko na nga laabal xolam kooku boobu la géyee dugg ci njaalo am na ñuy wax ne shaab boobu mooy juley bi bi nga xam ne mu ngi ci sixaax yi musnad imaam ahmad indi na ko ba tey euh, saxi muslim indi na ko nga xam ne ñu ne dafa ñaa ña fa ñaawoon bëgg a takk jabar ku bëgg a takk ñu bañ yonent bi am kum yónnee ne ko damaa bëgg nga may ma sama doom ah doom ji baay ji sawar foog ne yonent bi boppam la bëggal yonent bi ne ko déet juley bi laa bëggal ñi ne mukk doom ji ne baay jeeg yaayam ku yonent di ñaanal kay bu leen ko bañ ñi may ko ñi may ko kooku mu dem kooku yonent bi sallallahu alayhi ñaanal ko barke waaye juley biib dem na ci xare boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog di laajte ndax ñàkku leen kenn ci xare bi ñu ñàkk nañ diw ak diw de ñi seet gis ne fekk nañ mu dee ñàkku leen keneen ñu ñàkk nañ diw ak diw mu ne man ñàkk naa juley biib ñi dem seet fekk na rey na juróom-ñaari nit njëkk ñu koy rey yonent bi sallallahu alayhi ne kii ci ñun la bokk ñun ci moom lañ bokk am na ñuy wax ne moom mooy chab boobu moom la wala du moom waaye xikma bi nga xam ne moom la jëfandikoo ci xale bi moom la jëfandikoon ci arab yi bi saw ci ci ci jumaa ji commencé saw nit ñi ne ko tuug tuug yonent bi ne bàyyi leen ko commencé na saw bàyyi leen ko mu mottali saw mu saw ba pare yonent bi ne sotti leen ci ndox rek waa ji ne allahuma arxam ni warxam muhammadan wala tarxam maana ahadan yàlla na yàlla nga ma yëram waa maag muhammad mi waaye bu ci boole keneen yonent bi ne ko xajarte waasi an xatal nga lu yaatu nga xam ne xam nga xatal lu yaatu dafay dawloo nit ñi nga xamne ne oté kat ci yalla da nga soxla yoy yep nga xamne ne ni na moy tandiku yoy nga xamne ne fay dawlo nit ñi ndax waji ji ñeneen ba yéenewu leen ngërmaane yàlla ñooñu mënuñ ko yóbbu ci dara ci luy oté jëm ci yalla wa sabrun mu ñeek yoonu tbi sallallahu alayhi wasallam doyna ci lim wax rek ne buñ taxoon suma lox ndeyjoor bi jant bi tok weer wi ci ci chamoy bi moy lak pour ma bàyyi lima yalla yoni duma ko bàyyi lumay yalla feñal nako wala deenaa walis mata saaqa baliyaati xaaliqu waxtu woo xamee ne yàlla màng na nattu yi muñ gi nga xam ne moom la yontu bi sallallahu alayhi wa sallam mën a muñ kenn mënta muñ muñ googu wa ayaatu sidqin baana jahran bi annaha min allahi kullu l amri raaqa wa raaiqu ak ay aayaay dëgg alquran moo ci gën a mat waaye kaawteef yi war a yi tegtale yépp ci jahran ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim li doon wax ci yàlla tabaraka wa taala la jógee léppam lu xéeme léppam lu kawela bayina ko idan talladhi qad jita bil haqq sadiqan ya ñewé deug deugal ko alladi jaa bis sidq wa saddaqa bi ya ñewé deug ba pare deugal ko lim oté yépp mu ci jitu fa innaka masduqun fa innaka saadiqu yaay kiñ deugal yàllaa la deugal fa innaka saadiqu ba tey yaay ki nga xam ne yaay ki dëggu noonam yi ñoo wax ne ma suñoo nattu ci moom fen am na ñu new lay jaa bi sudq wa sadaqa bi mooy yàlla tabaraka wa taala moo ñëwee alquran dëggal yontu bi sallallahu alayhi wasallam ñii ne jibril ñii ne yontu bi sallallahu alayhi moo ko indi ñii ne saxaaba yi nga xam ne ñoo ko dëggal loolu yëpp ay maanaa la yoo xam ne maanaam euh, kii bi attan ko aleyka salatullahi wa salaamu fa barhaamu jiddun aashiqun fi gawaamiq julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne barhaama nag jiddu aashiqi maanaam ku la bëgg la mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu amul benn caaxaan ku la sopp la tourné aat nag di wax ak képp kuy dégg wala képp ku bëgg a dégg taarifuhu taarifu man ahwaahu ndax man ki ma bëgg xam nga ko mooy kan xaqan ci dëgg muhammadan kay muhammad ndax suma soppe bi xam nga mooy kan xam nga kan mooy muhammad nabiyun li kullil anbiya nga xam ne mooy yonanti mboolee yonant yi ñoom ñépp yàlla dajale leen mu jiite leen te wa huwa saabiqu mooy aji jiitu ñoom ndax moo leen jiitu ci nubuwatu donte dañ koo jiitu ci feeñ ndax moo wax ne kuntu nabiyan wa aadamu mujandalun bayna al maa'i wa tin nekkoon naa yonantu fekk aadama mu ngi sànneeku ci diggante ndox mi ak ban bi mooñaguñ ko kon moo leen jiitu taarifuhu bàyyi ne ndax xam nga ko zaaka kooku la chefi yow mooy aji ramm ji ki nga xam ne bés bi nga xamee ne aadama wax na ne mënuma ko nuuxu wax ne mënuma ko Moussa isa ibrahim ñoom ñépp moom moo wax ne yàlla ne ko rammal ñi ramm koo ramm ñaanal ñi nangul la booba la buntab ramm door a ubbeeku waaye fekk ubbiwu kenn ubbiwu ko moom moomu nga xam ne li wal hamdi fii kaffayhi raayaay cant ci ñaari loxoom la nekk fekk ñépp a ngi xol jëm ci mom moom la ko bay wax ne idha qumta wastal al anbiyaai mushafaan hunalika ashdu sana wa ulawihu hunaka tazakar ya shafiu muqassiran asira gharami fika yashdu wa yamdaxu تعرف طه باين رقم طه boko ko xamut moy ki nga xamne man mën bi xeqwihi ci ndigam ci geñom la ñep di té pour muccu abul bashir al ali xam nga taswir da fay wane njàqare deug deug deug deug waaw ko xamne dañ ko bëgg bayyi ci benn place xam nga kim yaakar ni koto mo ci mom ba ñew té ci ndigam abul bashir al ali muy ki nga xamne moy baye ni ñëpp muy adam ak barham muy ibrahim ci lahiqu tegu ci lolu wa nuhun wa muusa duma isa wa kulluhum ñom ñëpp yara an hada bi shafaati laaxiqu ñom ñëpp ñi ne kenn manu ko ndax ñom ñëpp nit ñi dañuy jaw jëm ci ñom ñi ne len dem len ci muhammad mom rek mo meuna ramu jami tay fa yashfau mahmud al maqaami mushaffa'an ومعتن سؤالا وهو بالحق واذن ميرم مجامي فك مغي ام مقام محمود بيغا خامني موم لاكو يالا ماي نده واخنا تي حديث جوير ني بو ديغي نود نيانال كو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله وعس المقام المحمود الذي وعدت بوكو واخي حدلت له شفاعتي مقام محمود بوبو nga xamne neena yaakaar na ne ci kenn rek moo koy am yowmal qiyaamati te moom la te amul benn sikk ne maqaama boo xam ne kenn rek a ko eeyoo ci kanam yàlla yonentu bekk la waaye loolu yépp dafay wane toroxlul boromam ak lan la ñaan di jëriñ xam na ne benn maqaama boobu moom rek moo ko war a moom waaye mu ngi wax ne ñaanal leen ma ko ku dégg ñaan ñaa ku dégg noddu ñaanal ma maqaama boobu maa lay garanté aljanna bàyyi ne mu ngi fekk mu ngi rammu jaam yi fekk mu ngi ràngoo maqaama boobu di ràmm jaam yi nag di yàlla di ko jox muy laaj yàlla di ko may wala sawfa yutika rabbuka fa tarda da ko yàlla wax yàlla daal la jox ba nga gërëm te fekk mu ngi dëgërlu ci yàlla ne mu koy nangu lim bëgg ci moom araani ma al allaati da nga ma gis ànd ak mbooleem xaal yu ma mën a nekk armuqu naxwahu yonent ci suma mbooleem xaal yi bu neexeeg bu naqadeeg bu tàngeeg bu seddeeg bu ma soreeg bu ma jegee oraj iltifaaten may yaakaar gesto minhu tëbdul xawaariqu bu tukkee ci moom boo xam ne xar baax yi dana ci tukkee ñi ngi ñi ngi yaakaar loolu ñun tim ci tegu biñ tegu ci yoonam di topp ay yoonam ñi ngi yaakaar iltifatatan hashimiyatan muhammadiyatan nuraniyatan boo xam ne tastagriqu jamia axwaalina alzahiriya walbatiniya bàyyi ne ida iltafata alhaadi ida iltafata bu geestoo haadi yonent bi kay aji juble ilay jëm ci man waxtu bu yonent bi geestoo bu ma yonent bàyyee xel yuxatti zalaami nuuruhu wal xaqaayiq boobaa sama lëndëm gi leereem geeg dëgg-dëgg yi ñoo koy muur loolu nag wax la leer bu taxawee lëndëm du fa xaj waaye mu boole koog dëgg-dëggam yi zaltafata alhaadi ilaya fa innahu yuxatti zalaami nuuruhu wal xaqaayiq boobaa fay yàllaay ñàkkal lii rek xamal lii te lëndëm naka jekk ñàkk la woon da an ka naqtal xayni fal aynu zahirun fa naqtuka ayna al xayni abdalaka al xayna fa naqtuka عين العين إبدالك الغينا ويلحقني بالسابقين تكرما باي نيم يوننت ايغل ما تي غاña بولما تي يالا دي واخ واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم يوننت بي ايغل ما تي غاي جيتو xam nga téléphone yi léeg-léeg nga am nga am iPhone 4 walla nga am iPhone 5 iPhone iPhone 11 génn rek ñi upgrade la ñi égal la bàyyi bàyyi na yonent bi upgrade bi fa yulxiquni bi saabiqina takaruman ngir mbaaxam rek nag ngir mbaaxam rek pour xamal na bàyyi ak li góor góor li def yépp ci yàlla lam commencé woon moom la mujjee dana def jaamu yi te ma ci loolu mbaax ak yàlla ci laa sukkandi wa yulxiqu ni bi takarruma yubaasitu fi jamcihi wa yucaaniqu muy ubbeeku ak man maanaam di ma tatagal di yaatu ak man ci mbooloo xam di ma doqoo sax wa yasmacu minni zikrahu wa madiixahu muy dégg ci man ma koy tudd di ko tagg yufaaxiru bi fi l anbiya wa yuaari wa yurafiqu muy puukarewu ci man ci biir yonentu yi ànd ak man ci biir yonentu yi bul foog ne loolu warta am ndax bu fekkee ne yonent bi salaai sallam moo wax ne te ka teka tanaasalu kaasaru fa inni mubaahin bikum l umama suma xeet bi damay puukareante giir yi ci ñoom yowmal qiyaamati bu fekkee loolu am na mu wér la na ñi gën a baax ci xeet mi ñooñu la yonent bi di gën a puukareewoo moo tax boo déggut mustawaa bi muy waxee àggal ci mustawaa yi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne dana puukareewoo xeet bi te moom ci ulamaaw xeet bi la sulahaaw xeet gi la ci bëggkat yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci dundale at seen alal ngir yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ci bëgg yi jaamu yàlla yi la bokk ki yërëmkat kati jaamu yàlla yi la bokk ci ñi xiir pour jaamu yàlla yi baax ci la bokk niti alquran ci la bok niti sunnatu muhammadin ci la bokk niti koo xam ne la nga jógee àddina la mu yàgg-yàgg bu set sa jëf ju baax di gën bes ndax yaa am top yoo xam ni waxtu wu nekk ñu ngi lu ci loolu te luñ ci def rek yàlla bindal fële lam ko waxoon ne wa yasmau min wa qalbi wax متى قمت وسط الأنبياء مشفعا نالك أشدو بالسنة وألوح فوف لا يوخد لتق وألوح معنام دوما واخ يب تي كاو لاي واخ فوف معنام فوف دوما فا واخ يب تي كاو دانا وي تي كاو با نيب دغ واي دوما واخ يب تي كاو نخ اشدو موي ماكاي واخ تي كاو واي وولويحو موي ماغي غارا yàlla yi ndax dana am bëgg-bëgg yoo xam ne ñi ci àggut duñ xam ne loolu am na ku xamul lu may neexaay àjjana loolu rek ngay bëgg ku xam ne janoog jëm yàlla ji am na da nga ko bëgg lilladina ahsanul xusna wa ziyaada bàyyi ne ziyaada googu mooy janoog jëm yàlla ji tabaraka wa taala te bàyyi ne falawla iltizaazum fi ljinaani bi nuurihi lama xanna naxwa alxuldi kulla mubassari bu taxutoon ak bànneexu bi ñuy bànneexoo ci àjjana ngir leeraay ak yonantu bi nekk ci biir àjjana bàyyi ne kon ku am bëti xol sax doo namm ajjaan fii nee na yonent bi sallallahu alayhi wa boo taxawee ci tax taxawaay boobu sol sa mbalaan moomu nga xam ne yow rekk yaayee ramm yonent yi door a ramm awliyaaw yi door a ramm saalixiin yi door a ramm nit ñi door a jottaliku sax seen jëf yu baax foofu danga may dégg ma lay tudd dina tagg kon tagg ak bàyyi yonantu kañ lay ja kañ lay ja tagg na ko fii ci àddina bi ñu koy dégg mu ne ñamay suul bu ñu ma suulee ba pare ne ndaxaw mbaay idan sarafal waaru na an def ni jussati baqiitu ax axyaa li yowmi liqaayi ñi ma doon suul bu ñu ma suulee ba ne suul nañ jëmmi baraxama mu ne ma dox di dë ma des di dundaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy mu dundee ak moom na doon dundee ak moom dundee ak ci ay taggam ak i mbëggeelam bu ñu demee ba at jànnatim nga ne ko xanaa fi ne wàcc jeex na mu ne ki doon fayeeku moo bëgg a wàcc waaye kiy wéy ngir bëgg yonantu bi kooku du wàcc ki doon fayeeku moo bëgg a wàcc waaye kiy wéy ngir bëgg yonantu bi kooku du wàcc sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu an cheikh aqulu lahu saxbi wa ahla mawaddati bàyyi nag dafa am benn baat boo xam ne man moom rek laa am ku am ci beneen dictionnaire nga may ma ko waaye damay toog ba ci kanam ma ne bàyyi dafa baax xam naa loolu ñëpp dañu wax ne dëgg la bàyyi baax na de te waxut ne lim baax baax waxut ne wax leen ne baax naa wax leen ne bëgg naa yonent rek laa wax aqulu jihaaran kaana maashi wa intiaashi bi dikrihi faqulu jihaaran inna barhama qad asha bàyyi na ci yoontu bi laa dunde yonent bi ci laay dekkee bàyyi na ngeen la wax leen ci kaw ne barhama bëgg na yonent bi aqulu lahu sax bi bàyyi ne bu ma yonent bi mayee yii ma may yaatal ma ba ma xam ne lu ma ñaan mu may ma ma ne ko suma àndandoor yi sax bi sax bii nag xam naa ne moo gën métti ahla ma ndax bàyyi li wax mu ne ànd bu ki ñii di def ñii di def ñii di dox ñii toog ànd amatu dañuy ànd di def di defandoor di baaxandoor di bàyyi lim lim li ñuy di ragal soppi ndax asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kenn gënu leen ma gis xadis ju raglu yonent sallallahu alayhi wasallam ne dafay taxaw شيخ حودم ديغم دي ناندال نيت ني من اي صحابه نيو بما خول لين ما خمنا ني نين لا سماي صحابه من اللهم اصيحابي ني سماي صحابه لا ني نكو خمو لوني سوبي سا غنا خمو لوني سوبي سا غنا باي دال نيانال نا اي صحابه موم اقول له صحبي من نا غنا ياتو با تولو موم ياتو واي اك مباخام جي اقول له صحبي damay naan dama naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sama àndandoor ya ma àndandoo nag démb ñu ngi nii xam nga am nañu bàyyi wax ci mag ñi ne bu ma yàlla mayoon ma dugg àjjana sans kenn ci ñii du ma nangu aqulu lahu sahbi wa ahla mawaddati ak ñi ma bëggoon loolu moom ñu ñëpp bu ñu neexee ñu oote ahla mawaddati fa qaalat xulu saxba alxadimi tisaabaqu mu ne yéen ñi nga xam ne yéenay doon àndoori suma liggéeykat bii muy barxaama abdullahi buuxante leen rawante leen maa ciy teg nag ku la rawoon ci mbëggeel gi fii nii moo lay raw ci rawante boobu ëllëg عليك صلاة الله وسلامه آل وصحب ساجلوا وتسابقوا جل شيء صلى الله عليه وسلم جل شيء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جل شيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجا قمنا ما سنيو دين دي بوخنت دي روانت شيء جف يباخ نيجي نيان يالله يالنا يالله فيال ولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه جن شيء فيه ñu ngi ñaan yàlla yàlla nangul ñi gàmmu gi nangul ñi bépp coono boo xam ne nii toggoo nañ ko ci ñu ngi dabaatal di nuyu yenn mbokk yi nga xam ne gis naa ñi teew suñ gannaaw Cheikh Abdoulaye Muntaka ci la bokk suñ jarbaat sëriñ Aliou Dem ambassadeur ak suñ xarit Mour Ndiaye Rahma ñoom ñëpp gis nañ ñi teew te ñoo ñëpp am ay taxawaay yoo xam ne taxawaay yu rafet la ci gàmmu gi ñiñ tudd ak ñiñ tuddut am na ñu xam ne liggéey nañ lu bari te kenn xamu leen waaye ku ñu gën xam na leen Seydina Omar bu jugee ci xare ñi ne ko diw ak diw génn nañ àddina ñu xam waaye diw ak diw ña ngi fa woon amiru muminin na xamul leen mu ne yàlla xam na leen kon jëf la joo xam ne ñi ci jëf ñi xam leen ak ñi xamul ñëpp ñi ngi ñaan yàlla yàlla boole ñu nangul ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla euh, kattanal ñu ba nga xam ne gàmmu gi niñ ko commencé ñu génn ci euh, ci jàmm ñu ngi ñaanal alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi di ñaanal euh, mbooleemi rakkam ñaanal cheikh Mouhamadul Amin ñaanal imam cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne mooy def gàmmu gi ñaanal mbooleemi taalibe yi mbooleem muqaddam yi fu ñu mën a jugee di ñaanal Sénégal ci boppam ak mbooleem wa Sénégal di ñaanal gouvernement yi Sénégal mi nga xam ne tim am nañ seen taxawaay bi ñu def ci gàmmu yàlla dimbale leen teg leen ci yoon wi nga xam ne nii mooy demale Sénégal ci kanam képp koo xam ne yëngatuñu nga ci yàlla na la yàlla fay gën caa rafeti fay yokku la gën caa rafeti yokku waaye ñi ngi gërëm tim fitiaan euh, sitkin yi nga xam ne ci njiital Cheikh euh, Baye nga xam ne at yi yëpp ñi ngi def euh, jotaay bi nga xam ne sof ko ci rek ci waxtaani gàmmu ngir dimbanikoo ko jamono xatoon na tey sax ba njàpp ne duñ ko mën def waaye seen xir ak bëgg njëriñ lu tasaaroo ci mbooloo mi moo tax ñu def ko waaye ñu ngi nuyu suñuy rak suñu xarit Cheikh Ahmed Boucar ñang moom it na ànd ak euh, Ibrahima bi tey nuyu mbooleem ñi nga xam ne tudd nañ leen ak ñi ñu tuddut ngi nuyu suñuy jarbat safa ñoom ñëpp euh, maa ngi jiital ñi nga xam tim gisuma leen maa ngi jiital ñi ma ngi leen di ci ci ak ñaan ñi ngi ñaanal sénégalais yi nga xam ne euh, dee nañ ci euh, bateau yi nga xam ne euh, ñi ngi doon dem di utri ut utin boo xam ne pour am rek teraanga donte jaral na leen kuus ci yoon boo xam ne bii dee la bii dund la yal na leen yàlla yërëm yàlla yàlla utali seen wàjjur lu gën yàlla may Sénégal naataange maytim ay ndawi sénégal kóolute sen sen ak yaakar sen bop ak yaakar sen rew ba nga xamne ne jël all bi di top di dugg ci ay gaal yo xamne ni nit man na ci kamne ci lo xamne ni nii kenn du xam lan la ñi ngi nuyu suñ mag euh, cheikh ibrahim ibn Haji usman momit ñew na na suñ gannaaw di nuyu gan yi jugee euh, fu nek barab yu fasantiko haaj omar jugee ba burkina ak euh, délégation bi nga xamne mom la ànd ak ñu ngi nuyu ñep goor ak jigen mag ak ndaw ñi yàlla علينا وعليكم المولد باليمن والصحة والبركة ويقبل علينا وعليكم بمحض فضله وكرمه ورضاه ويعطينا وإياكم بملء كفيه ويرفع عنا وعن الأمة الإسلامية هذا الوباء وهذا البلاء ويزيحه عن السنغال وعن جميع بلاد إفريقيا وعن جميع بلاد المسلمين وعن العالم كل العالم اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ترينا الإجابة عينا حينا في أنفسنا وفي أهلنا وزرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع وغاب وزدنا وعتنا وارفعنا ودافعنا وحفظنا واحفظنا وسجد أمورنا ورح أبداننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك واسترنا بسترك الجميل وآمنا بلطفك الجزيل وفضلك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم